asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajuma ñaar fukki fan ak benn ci dul xijja muy weeru tabaski di fukkeelu weer ak ñaar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ñaar fukki fan ak benn dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci ajuma ji rafetul ñaanu bés bi maa ngi sàkku njéggalul yàlla mi aji màgg ji yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu dul moom te mooy aji dund ji te aji des ji tey tuub dellu ci moom astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu boroom mu kawe mu màgg mi dina yéex a aji tooñ ji maanaam du ko gaaw a mbugal waaye it bu ko jàppee ba di ko mbugal it du ko gaaw a bàyyi xadis bi Buxaari ak Muslim nettali nañ ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha azza wa jal yumli li zalim fa ida axadahu lam yuflitu rawahu buxaari wa muslim